abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér te wóor aju ci réew mi rajiim bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu seetaan ci ngi leen di nuyu di leen ziyaara. di ñaan suñuy kàddu fekk leen si jàmm di leen nuyoo ci nuyoob islaam di wax jaam yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na wàcc képp kenn ci yéen kon incha allah tey ñu ngi ñëw ak yéen ci mawdu boo xam ne bu jamono laaj la fi mu nekk mooy lu jëm ci wàllu tabaski lan mooy tabaski tabaski comme ni ko boroom xam-xam yëpp firé ak jaamu yàlla la goo xam ne ay jaamu mi nga xam ne ñoom la bind muy doomu aadama yi dañ si jéem a jege seen boroom si rendil ko ab gàtt kon du jaamu yàlla goo xam ne doomu aadama bi dafay def lu mel ni koor walla muy julli waaye jël li nga xam ne moom mooy gàtt rendi ko jaamoo ko yàlla loolu moom mooy tabaski moo tax leneen lu dul loolu ci bés bi daf koy taaral di ko gunge loolu li koy firndee nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne doomu aadama bi defalul yàlla ci bésu tabaski lu gën a màgga mu tuural ko deret lu gën a màgg mu tuural ko deret moo tax jullit bi nga xam ne yàlla mën loo na ko mu am loo xam ne moom la mën a jege boroomum ci jaamu yàlla googu muy rendi gàtt na ko def léegi tabaski googu nag war na ci képp comme ne mu kallaf la mooy ku majeur muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy ku denc soxna ak ku dencul soxna jigéen bu nekk ci buumu sëy wala jigéen boo xamante ne duggagul ci néegu sëy kon mbir mi tollu ci benn statut wala benn rang social waaye mu ngi doon teelu rek ci nit ki am man-man boo xam ne moo koy manloo mu mën a jënd ab gàtt jaamoo ko boroomam léegi gàtt boobu nag dafay nekk lenn ci ñett yi bu njëkk mooy al ibil muy gëléem bi ci topp mooy li nga mooy albaqar muy nag ba ne mooy alxanam muy juri kër yi bu ñu ne juri kër yi nag moom mooy xar walla bëy biñ ci gën a taamu nag moom mooy li nga mooy xar nga xam ne moom lañ gën a miin si penc mi nga xam ne moom mooy suñu penc senegal kon dafay jaadu xar moomu it ñu xam yan critère moom la làmboo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñëw ci xadis dañ wax ne ba nga xamante ne moom la rendi ci am tabaskeem dafa rendi woon kapsh muy am kuy nee na kuy moo xamante ne ñaar la woon yu kapshee ni am la xay ni ñaari yu weextal ci beneen xadis mu ne da doon dox ci li nga xamante ne mooy lu weex maanaam tànkay dañoo weex yaram way dañoo weex waaye li nga mooy gémmeñ gi ak ci bët yi am ay tomb yu ñuul yente ba mu ko rendee mu ne gàtt bii de benn bi ngir man la waaye beneen bi mooy képp koo xam ne sama xeet yàlla def na tabaski ji te ci moom ba amu ko bii moom mooy am tabaskeem gàtt boobu nag bokk na ca yangante moom la dajaloon ci ay condition muy ay charte comme niñ ko waxee léegi xar lay nekk muy premier choix xar moomu nag néew ba néew war na am juróom benn weer kon xar mu am six mois minimum mooy xar mi nga xam ne moom lañuy ñuy tabaski kon ci foofu ngay xam ne kon ñu bari mën nañoo tabaski charte bi nekkul ci mu nekk xar mu rëy lool waaye charte mooy mu nekk xar moo xam ne dugg na ci juróom benneelu weeram léeg-léeg foofu ñaari mbir ak ñaari taxaw seetlu moo ci nekk bu njëkk mooy ubbil nañu ak yëmbal ci ki nga xam ne peut-être mënul jënd yenn xar mu jënd xar moo xamante ne buy oyof lay nekk ndaxte poosam lu jënd xarum juróom benn weer at mu nga ca waaye beneen bi it nit ki du xeebal mbir boo xam ne moom lay jaamoo yàlla kon koo xam ne yàlla wërsëgal na ko mu am ci alal lu doy lu mu jënd ci am xar lu mu rëy rëy rëy doyul parce que dafay jaamu yàlla tabaraka wa taala kon yenn wax yi nga xamante ñi di ko ne am tabaski de xar mu sàngam rek du ma ko si weesu wala xar mu nàngam rek doy na ci déedéet fa nga xam ne moom mooy cosaanu tabaski mu bàyyi ko si Seydina Ibrahim nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko sante woon ngir mu rendi doomam muy Ismaïl ba mu nangulee yàlla lépp ba desul lu dul tër doom ji rendi ko yàlla gis jaamamboom boobu ni mu ko nangule waaye jaam boobu ngi mu paree ngir jiital bëgg-bëggu yàlla ci bëgg-bëggu ba kenam ba mu jaral ko mu pare ngir rendi doomam doomam jot di Ismaayil yàlla ba mu koy jotu mooy ba mu koy wuutal ba tax yàlla yaayam pappam di Ibrahim rendiw ko yàlla neen wa bisi bi zibhin azim dañ koo jotee mooy dañ koo remplacer ci am xar moo xamante ne xar mu màgg màgg ne liggéey jëf ji jëf ju rëy la waaye màgg ne liggéey xar ma it nekk loon xar mu ndaw kon moo tax nit buy rendi bu fekkente ne mën na ko na rendi li ngante ne mooy lu mag waaye ñu moytu di jël li moo gën a bon si suñuy juri kër wal li ne mooy si suñu alal uteeg li nga mooy am tabaski di ko jébbal borom bi tabaaraka wa taala borom bi mu ngi nettali ci alxuraan ñaari doomi bàyyi aadam ñoo xamante ne ku ne si ñoom da doon jéem a jaamu yàlla ci alalam muy haabil ak qaabil kee jël li nga xamante ne moom moo gën a baax si li ngante mooy am mbayam jox ko yàlla tabaaraka wa taala waaye kay jël la gën bon la ngante ne moo yées ca la ne mooy ak mbayam ñëw teg ko ci kanam li ngante ne mooy borom bi mais yàlla nee na kan lañu nangul ka nga xamante ne moom mooy ki ragal yàlla kon moo tax booy jaamu yàlla ci loolu taamu ne si nga jël fekkente ne mën nga ko loo xamante ne lu rëy kon condition bu njëkk bi mooy xar moom war na am juróom benn weer ñaareel bi xar mi war na nekk loo xamante ne gis-gis ba dafa leer nañ maanaam xar mi du nekk am selmax moo tax dafay jaar ñi ñoom ñooy jënd bu ñuy jënd am tabaski ñuy xool bu baax ndax xar mi mu ngay gis ndax xar mi nekkul xar moom te ne benn côté kese lay xool lay xoole wala dafay téen di xool yooyu yëpp dafay am ci li mooy xar yi beneen bi mooy war nekk xar moom te ne gémmiñ ga amul li ngante mooy xet bëgguñu xar moo xamante ne gémmiñ gi dafay xasaw lool ba boo ko tiimee rek xetu gémmiñ ga di dégager xar moom it bokkul ci xar yi ngante ne sartal nañ ko ci li ngante mooy am tabaski beneen bi du nekk xar moo xamante ne béjjin ya dafa damm bay nàcc li ñuy nangu ci béjjin bu damm mooy béjjin boo xamante ne damma ga ginnaaw ga wér na ba deret génnatu ca kon su boobaa bu dammee su boobaa dara amu ci waaye su fekkee damm damm bu bees la nàcc nàcc di ci génn xar moomu bokkul ci xar yi nga xamante mat na am tabaski beneen bi ci topp mooy xar mi warul nekk xar moo xam ne li ëpp ci geen bi dafa dagg maanaam sulus bi muy un li nga xamante mooy deux tiers dañ na bu doon xaaj ñetti xaaj daanaka ñaari xaaj yi ci geen ba dagg na xar moomu it taamu ko ci li ngante ne mooy tabaski beneen bi ngante moo ci topp mooy xar moo xamante du dégg dafa tëx waaw xar mu du dégg tëx nag faaw ngay def ay son ci wetam walla ngay yuuxu xool ndax dina la dégg mais fekkee xar ma du dégg nekk li ngante am tëx xar moom it bokkul ci xari ngante ne chartal nañ ko ci li ngante mooy tabaski beneen bi ngante moo ci mujje mooy yéen saa salaam nee na bokkul ci xar yi na ko tabaskee mooy xar moo xamante ne laa mu xalawu xar mu yooyu lool ba daanaka amul gerees xar mi boo ko gisee da ngay gis ne yax yëpp mu ngi génn loof ndaw ba nga xamante ne boo ko puusee sax xar mën na fa jaari faatu liñ naan rey mu dee rey mu dee xar moomu bokkul ci xar yi nga xamante ne moom dañ koy tabaskee kon juróom benn yi ñu wax nii mooy yi nga xamante ne moom moo war a daje cim xar ñu li nga xamante ne mooy tabaski ko fi ñuy daanale mooy tabaski ko mbokki jullit yi feet la ci jullit yi feet la boo xamante ne comme ni mu nekkee euh, ci korite feet waaye feet la boom te ne dañ si sóobu ginnaaw bu ñu defee ay jaamu yàlla yu rëy lu important tabaski ak feet la boom te ginnaaw buñ génnee si jaamu yàlla gu màgg jaamu yàlla gu màgg ak mooy ñi gën a màgg ci yàlla di ay gan ci waxtu woowu ñu ngi nekk di ci suuf sa nga xamante ne bokk na suuf yi yàlla gën a fonk bërëb ba nga xamante ne moom la yàlla gën a màggal mooy kaabatullahi al musharrafa ñoo ñu leen di tudde li nga mooy duyuufu rahmaan gan yàlla ñu bàyyi li nga mooy àdduna simmeeku ci li nga mooy seen yëre yi nga xamante mooy dafa jëm ci mbir taar taaru àdduna wuyu seen boroom di ko la bayka di ko li ngante ne mooy kàbbaral di ko tas biixal waaye di ko jege ci mboolem ay xeetu jaamu yàlla di tawaaf li ngante mooy néegam bi di def li ngante ne mooy seeni jamaraat du waaye itam di def li ngante mooy safa ak marwa ginnaaw bu ñu defee farata yooyu yëpp bas li ngante mooy fukkeelu fan ba nag ñu koy tudde yowmul xajjil akbar bésu aj bu màgg muy bésu tabaski bés boobu nag moom la ñuy rendi li ngante ne mooy seeni gàtt moo tax ñu ñi nga nekkuñu ca foofa ñu leen di royee ci loola seeni takbiiraat yi ñu ñu leen ciy royee bés bi nga xamante ne bésu arafa di bés bu màgg war a tolloo talaata nga xam ne yonent bi sallam nee na képp ku ko oor yàlla jéggal bàkkaaru ñaaru at ña ñoo nekk ci bërëb boobu ñoo gën a màggale ak fay ndaxte yàlla da leen di xool ñoom ñëpp mu oo ak ay malaakam ne ne xool leen sama jaam yi xool leen li ñu bare bàyyi nañu seen lépp ñu ngi nii di toroxlu ñu ngi nii di tumuranke ñu ngi nii di sonn di xiif waaye lépp ngir wuy si ma man borom bi tabaaraka wa taala yàlla ne malaaka yi ñii de jéggal naa leen ñii jéggal naa leen seen ak fay amul lenn du li mooy aljana moo tax tamit ne alxajjul mabruur laysa lahu jazaun illa aljanna aj gu yàlla nangu amul ak fay guñ koy nattaale naan lii danga ko ci am ci aw yiw lii danañ la ko ci dencal mais yàlla ne da ngay ñëw aljana ma dugg da ngay ñëw yomal xiyaam ma dugal la fi ngante moom mooy aljana moo tax kon bu ñu génnee ci bés yooyu mu bési aji ñu feetoo ko jeexale li ngante bési fukkeel ba ci li nga xamante ne moom mooy tabaski ñu rend li ngante mooy ab gàtt ñeel borom bi waaye berndee ci li ngante ne moom mooy njaboot ji waaye fexe leen tamit taaral leen ci li ngante bés boobu wala li ngante mooy lislaam am na li ngante mooy ndam kon moo tax loolu moom mooy li ngante mooy sens tabaski ñu roye ko ki nga xamante mooy suñu baay Ibrahima nag nga xam ne moom moo nangu loon yàlla ci rend li mooy doomam yàlla wuutala ko li mooy am tabaski moo tax bés boobu bu jotee mooy fukkeelu fan ci li mooy weeru aj fu mu jotare jaam yëpp dañ si li nga ne mooy rendil yàlla ab gàtt ngir li nga ne moom mooy jaamoo ko bu ko defee képp koom te ne yàlla wërsëgal na la loo ko mane na nga ko li ne mooy def waaye nag nga def ko ixlaas sellal ko yàlla dong mu tax bul ko def ni geex lan damay bañ ñu xeeb ma damay bañ xale yi nangam damay kat dama koy def tamit ni geex lan dama bëgg maa fi gën a rëy am xa déedéet waaye nag danga koy def ngir li mooy jaamu yàlla tabaraka wa taala kon mbir yi ci tënk mooy yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu tabaski ci lan mooy tabaski ak tabaski fan la jóge ak li mooy am tabaski muy xar yenn critère la war a am waaye beneen bi si mujje mooy ñoo xam ne ak jaamu yàlla goo xamante ne moom mooy jeexal li mooy fan yi mooy fani ajji waaye te moom mooy nekk bés bi nga mooy bésu feet mooy ñaareel fecc li mooy julli ñi yal yàlla yóbbu ñu si jàmm yàlla yëmbal li nga xamante ne mooy yi loo xamante ne moom la ñuy jaamoo seen borom muy rende ko gàtt waaye wërsëgaleen loo xamante tamit si la ñuy mën a terale bende ci li nga mooy njaboot gi yal yàlla yombalal ñëpp yal yàlla nangu ñit bés yi nga moom la ñu nekk jaam yàlla yi nga xamante moom lañ ciy def muy fukki fan yëpp ay fukki fan yi jaam yàlla la ay def bési jàkkabar la ay fan li ngante mooy koor la ay fan li ngante mooy def lu baax yentu saa sa moo ne jaam bi defalul yàlla lu gën a màgg ci bés yi ngeen de toll tiyaaba joo xam te buñ ko doon tollaale moo raw comme te dafa génnoon ci yoon yàlla jeexaadi ba mu demee la mu yoroon ci alal la mu yoroon ci bakken la mu yoroon ci yóbba lépp dara dellu sew si kooku dong dong mu ëpp aw yiw kii ngante muy góorgóorlu ci fan yi kon moo tax fan yi ay fan la lépp lu ci ay jaam yàlla yàlla nañ ko yàlla nangul haza wa sallallahu ala sayyidina muhammad